moy laa ñu dégg ne fa ñu bëgg jëm te ñaan yàlla mu bañ mu gën a am wara a tax nag ñu defarwaat xoolaat suñu stratégie vidéo bi ma lay faseen faseen ci waxtaan ak yéen ci tànneef waxoon naa leen ni danañu fexe ba jàllale lu ëpp benn candidat man mi sax sama candidature bu jàllee du teet nañu fexe ba jàllale yeneen candidature dinañu fexe ba déposer leen candidature fexe ba ci candidature moo am yu bu gannaaw loolu nag dañ dellu si tànn tànn gi fàtt ma fàttali li ma waxoon mooy tànneef gi ñaar la imma ma tànn proposé kenn ne ki mooy candidat bi ñeneen ñëpp daal di bàyyi ñëw jàpp ci gannaawam ñu dem ci election yi gagné ko ci kàttanu yàlla wala bok ma tan kenn ne ki moy candidat bi waye bu fekke bu don fek na ci jamono joji yalla jallale lu upp benn ci suñu candidature ñeneen ñi ma bañ leen wax ñu bay seen candidature dañuy maintenir seen candidature mais day doon candidature bo xamne day dooleel candidature principal bi ci ban anam moy ñun ñëpp dañuy bokk benn programme muy programme bi nga xam ne moom la ñu tënk liggéey ci depuis ay ati ati at présenté woon ko Sénégalais yi deux mille dix neuf gën koo toggaat nag defaraat ko muy programme Sonko président ñu bokk ñaareel bi mooy ñu gën a yaatal suñuy temps fu ñu waroon am benn temps ñu mun ci am temps yu bari yoo xam ne benn bu nekk nag programme bi ñu bokk ñu muy programme commun bi candidat bi ci lay jukki benn poñ wax kook Sénégal ba Sénégal xam xam fa la ñu bëgg a jëm ak ñoom ñetteel bi mooy ñu mutualiser ci suñu campagne mooy ñu ak nu mu ti ñu dajale leen benn campagne bi yomb ci kenn ku ne ci ñoom moo xam dañuy def benn caravane national unique bokk ko. wala bokk ci lu ëpp su dee campagne bi vingt jours la mu tuuti tuuti ñu am quinze jours yoo xam ne wala dix jours yoo xam ne ñoo koy bokk benn caravane nationale ñu dajale suñu doole ndax campagne dafa métti dafa laaj xaalis bu bari laaj ay moyens laaj ay oto laaj sécurité laaj dund du yomb waaye bu ñëpp daje day gën a yomb te ñi Sénégalais dinañu xam ne ñii ñoo bokk projet muy beneen affaire boo xam ne. lu am solo lay doon ñaari possibilité yooyu moo am waaye dinaa ñëw ci lan laa ci ñaari possibilité yooyu wala balaa may dem ci loolu dama leen di wax lan laa tànn ci ki nga am ne war a doon candidat bi incarné le projet tànn yombul tànn éliminé la xaw ma nag ñaata candidat la ñuy am tollaguñ ci waaye guñ ci tollee am naa yaqin ni war nañu mun ëpp benn candidat buñ leen jàllalee nag ci candidat yi jàll bu dee candidat Bassirou Diomaye Faye jàll na moom mooy doon sama choix man mu doon candidat principal bi nga xam ne mooy porter projet mu doon candidat bi xam ci moom laa woo Sénégalais yi ne leen wooteel leen Bassirou Diomaye Faye mu doon candidat boo xam ne moom la teg lox projet bi ci loxoom mu incarné ko en tant que candidat ndax xam ngeen Pastef projet collectif la waaye élection présidentielle dañ naan c'est le rendez-vous d'un homme le peuple moo collectif bi day jàppale góor nit kooku ñu tànn moo xam góor moo xam jigéen la kooku nag ci sama tànneef day méngoo ak Basiru Joomaay Fay tànn gi ma tànn Basiru nag defe naa du bett kenn mënoon na doon kenn ku nekk ci ñen ñeneen ñett ñi nga xam ne préparé na leen woon ay vidéo ne mën na doon kenn ci ñoom di ko xaar nag ba ñu egg ci jamono jooju la fay xew ci diggante fii ma toll nii ci mois de juillet deux mille vingt trois di wax ak ba ñuy toll ci loolu muy mois de janvier tax xam ngeen ni liste ba nu mu gën saa gën saa gën saa gudd le euh, le le le le vingt janvier la conseil constitutionnel di diggante fii ñu toll ni juillet ba vingt janvier nu mu tuuti tuuti juróom benn weer la lu ne mën na fay xew bu dee du man de Ousmane Sonko mooy doon candidat bi ma ñeenti vidéo yi nga xam ne defar naa ko mën na doon kenn ku ne ci ñoom waaye ci bii vidéo ma biral leen ni Bassirou Diomaye Faye laa tànn muy tànneef goo xam ne dama wax léegi ni du bett kenn ci Sénégal yi du bett kenn ci waa bitim réew sax ñeneen ñëpp mënoon na doon ñoom mérité nañ ko am nañu sama confiance dama toog xalaat ci ay critères critère bu njëkk mooy candidat bi lan mooy profilam lan mooy euh, meloom ci li nga xam ne wàllu xam-xam la ñu koy profil intellectuel ci li nga xam ne wàllu formation la ci li nga xam ne wàllu jaar-jaar la ndax dama leen yàgg wax ni un homme politique dañ koy natt ci discours am waaye dañ koy natt surtout ci parcours mooy politique du wax kese politicien boo jël mu ne la maa fi gën a baax maa fi gën a jub maa fi gën a set maa fi gën a bëgg réew waaye est-ce que ci jaar-jaaram bu ñu jaar-jaaram méngoo nag loolu loolu tam sénégalais bu ne war na ci di bàyyi xel ndax. njuumte ñu dal yëpp ci tànneef li ko andi mooy dañuy topp rek waxu politicien bi waaye duñu xool jaar-jaar ñaareel bi nga xam ne moom moo moom lay jiital ci critère mooy expérience muy lu am solo expérience am na solo mooy nit ki jaar-jaaram lan la ko war a jox ci xam-xam ba ñu yaakaar ni war na am na jox réew mi ñetteel bi ma jiital mooy kamay tànn naka la méngóog li nga xam ne mooy infrastructure parti bi nga xam ne moo war a porter liggéey bi mooy parti wala élection dafa am lu machine bi appareil électoral bi dafa am lu koy porter mooy électorat bi ñiy dem wote nga xam ne ñëpp bokk ñi ci parti bi. ñi bokk rek ci parti bi ñi sympathisant ñu rek moy dañu bëgg dañu laa bëgg rek ngir yalla wala dañu laa bëgg ci yaakaar ya bi ñu am ci yow ne mën nga defar réew mi kon loolu dafa am solo ma xool tànn bi may tànn fi may tànn naka ba ci ban degré lay méngoog loolu parce que boo tànnee mën nga tànn koo xam ne profilam baax na lool waaye bu dee boo ko tànnee lenn ci infrastructure bi lenn ci base bi nga xam ne ñoom ñooy dem ci lu ëpp seize mille bureau de vote ci réew mi ñoom ñoom war a toog ñoom ñooy dem dugg di def porte à porte kër ak kër di def campagne dugg ci marché yi ñoom ñooy mobiliser électeurs yi wala lenn ci sympathisants yi nga xam ne doonte bokkuñu ci parti bi am nañu yéene voté pour yéen bu dee boo tànnee ko jëmm jooju doonte profilam baax na lool ci wàllu intellectuel ci wàllu diplôme ci wàllu loxo yu set waaye bu dee boo mën na andi Euh, euh, friction mun na tax ñenn ci ñi war yenu liggéey bi ne gisuñu suñu bopp wala ñu gedd ba dem bu boobaa it doo ko tànn ndax loolu dafa am solo moo tax am na yeneen anam yuñ doon nekk tànneef bi dañ koy delloo Sénégal yi delloo ko militant yi delloo ko base bi delloo ko Sénégal yi électeurs yi laaj leen ban lan ngeen ci xalaat damay jot ni temps bi ak situation bi du ko ñett yooyu dafa am sol ñeenteel bi nag mooy keñey tànn naka la mel ci projet bi naka la mel ci projet bi bu ma jëlee ñeenti critères yooyu dinaan wax ni choix bi ma def ci Bassirou Diomaye du choix wu choix de cœur choix de raison la mooy tànn ma ko ci cofeel wala ci mbëggeel wala ci parparlo waaye dama ko tànn ci xel ci xeltu ma xeltoo ba dajale gis ni profil bi ku ko jiital ma ànd ci puus ñeneen ñëpp ñëw jàpp victoire bi dina yomb lool naam Bassirou Diomaye sama rakk la ñëpp xam nañ ko Bassirou Diomaye duñu ñaar benn lañu mag moom muy koo xam jamono jii ñu toll ma toog sama kër nii ñu bari karim moom mu nekk prison Cap Manuel la ko yóbbu prison Cap Manuel cofeel gi mu am ci man ba mënul téye boppam moo ko andi ndax keroog bu ñu nekk euh, convoqué nañ ma ci tribunal wala xamu ban xew-xew moo amoon biñ ma ne convoqué nañ ma ci tribunal ci la Basiru mer ba bind texam ne magistrat dañuy jaamu Macky loolu rek moo tax ñu yóbbu ko prison Macky magistrat yi dañoo dañoo toroxal seen bopp ci kanam Macky yen yenn ma yi boobu lool moo taxoon ñu jàpp ko yàggu maa xamante ne moom impôt yi damay nañu boole gën saa gudd su ma juumul 2007 wala 2008 lañu lañu lañu lañu njëkk a gisee kon yarawuñu màggandoowuñu waaye yàlla mooy def loolu cofeel googu yóbbu ko ba yàlla wërsa ne ko ko doom mu tuddee ma ko man mii te loolu su ma juumul 2016 la woon bañ may tàkk ci fonction publique dañ ma tàkk ñu tekki ñetti euh, semaine wala ñaari semaine yàlla wërsa ne ko doom mu tuddee ko mu ma ko kon kooku kenn mënul lam-lame sama digganteeg moom ci wàllu cofeel wàllu mbokko sama rakk la sama xarit la noonee Fatou basiru mel ak man non la ñeneen ñep mel ci man dirom sulay non la ñu mel El Malick ñay non la ñu mel Abbas Fall non la ñu mel na Dièye non la ñu mel et cetera da ci ay frère lañu ay sœur lañu militant yi ma bëgg ba mu jaral leen lu ne te man xawma leen te mosuma leen gis ñoo ëpp sax milit ñi nga xam ne xam naa leen te ñu jege ma loolu mooy passif nous sommes des frères et des sœurs yàlla def nag Basiru yegg ci foo xam ne sama diggante moom du loo xam ne dañ koy laam-laam ba mu dugg ba ci suñuy famille jaxasoo waaye ànd ak loolu yëpp nag Basiru tànnuma ko ngir loolu de tànnuma ko ngir suñu amitié tànnuma ko ngir li li nga xam ne dox na suñu diggante déedéet man duma politiquer noonu dama leen musa wax ni la jëm ci réew mi aw ma ci sentiment aw ma ci rakk aw ma ci mag aw ma ci baay aw ma ci doom intérêt Sénégal bu ngeen di fàttaliku élection présidentielle deux mille dix neuf bi ma demee ba Bignona nga xam ne falaa cosaanu muy département boo xam ne sama dëkku baay falane dama wax ak ñoom ne leen bu leen ma woteel mukk parce que seen doom la bu leen ma woteel mukk parce que seen mbokk la. bu leen bu leen bokk parce que ñoo bokk xeet wala ñoo bokk gox déedéet waaw su ngeen may woteel da ngeen may woteel parce que jàpp ngeen li ma leen won ci xam-xam ak ci jikko ci bëgg réew mi war naa justifier ngeen woteel ma moo duma tànn ci yàlla neex dama tànn Basiru ci yi wax bu ci lan profilu Basiru ku ñu ne jàng na sans faute ba am maîtrise def concours école bi ñu ne moo gën a kawe ci administration sénégalaise muy ENAM réussir ko dem def sa formation génn nekk inspecteur des impôts liggéey fa liggéey bu mucc pay ko ba nekk tey inspecteur principal am ay jaar-jaar yoo xam ne kenn du ko werante ci biir impôt te liggéey ci biir impôt lu mat léegi pratiquement 20 ans te kenn mënul taxaw ne Bassirou jomay musna jël dërëmu jambour wala musna jël terrain jambour dama ko yàgg wax ci sam bop non mako wax ci sam bop laa ko mën waté ci Bassirou jomay Faye gëm ñu moma a juk a jug man kon kooku su dé ci walu déontologie moy loxoy set féete na bor su dé ci walu xam-xam na bor ndax ba ñuy former ñi war a yor état fa la ñu former Bassirou Diomaye Faye te liggéey nag en tant que haut fonctionnaire ci état boobu léegi di xale boo xam ne ku ko xam rek intelligence am nga ko nawee Bassirou est un homme extrêmement brillant macha allah te bi muy nekk école primaire ba léegi seen boobu lañ ko seedeel mu ànd ceeg tey ak dal nag waxam moo bariwut li xalaat moo ëpp li muy wax bu xalaatee ba pare li muy jëf moo ëpp li muy wax kooku mooy basiru Diomaye Faye am na yar am na teggin dal na Bassirou Diomaye Faye bokk ci projet bi depuis le ñi ma ñëw woo ma dañu bëgg taxawal parti té il faut nga ñew buñ ma woy ba paré dama woo Basirou Diomaye Faye woo Birame Souleye Diop woo Aïcha Touré woo euh eh, num touré ci comment eh, eh, ça s'appelle encore euh Jamil Sané maanaam sen mom mom bokk na ci ñi mo jël ci man ñom ñoo sub parti bi dëgg-dëgg. ma woo ñële ñu ñëw dama su dee yow dinañu bokk ndax fas yéene ñu woon def politique ci suñu dund bës boobu ba keroog bu ñuy def assemblée général ba taxawal parti bi Bassirou Diomaye mi ngi ci projet bi ñu dénk ko fi mouvement des cadres ba programme bi may wax Bassirou Diomaye moo moo coordonné bi ñuy bind programme bi programme bi ñuy wax moo ko bind ànd ak cadre parti bi ñu dénk ko fi diaspora bi mu boole ko cumulé ko ak mouvement des cadres mboolaa jee waa diaspora bi kuy Bassirou Diomaye Faye dara nga ko wax it ba fan yële passé wala ay weer ci gannaaw ñu gis ni parti bi jar naa defaraat jar réorganiserat ma jël li nga xam ne mooy xoolu parti bi li nga xam ne mooy coordonner activité parti bi moo téye parti bi ndax Pastef ni mu bindo man dama leen ne ba ñuy def parti bi dama leen ne man du ma doon président boo xam ne day téye parti di gérer section yi di gérer coordination yi man bëgguma lool kon nañu ut loo xam ne mooy gérer lool poste secrétaire général Pastef kooku moo xam parti bi moo yor parti bi mooy coordonner ak département yi mooy coordonner ak commune moy coordonné ak mouvement yi les femmes les les jeunes les cadres les enseignants magi Pastef euh, euh, nitu daara yi mooy coordonné avec les les démembrements de la diaspora kon kooku xam na parti bi parti bi xamna ko it mu doy ma jël lol teg ci loxo kon sou dee par rapport ak projet bi muy deuxième critère bi Basiru matale nako ba mu mat sëkk. ñetteel bi mooy par rapport ak expérience ndax bu ñuy wax expérience da ngay dégg ni ñi naan la kii homme d'état bu mag la ndax nekkoon na fi ministre nekkoon na fi directeur général nekkoon na fi ministre d'état nekkoon na fi mais loolu ça ne veut rien dire état Donald Trump musul nekk ministre musul nekk euh, euh, euh, premier ministre musul nekk secrétaire d'état keneen na keneen ak keneen président yu bari mosuñoo jaar foofu waaye expérience bi ñu gën a intéressé ñun mooy est-ce que xam nga état nu muy fonctionner loolu Bassirou Diomaye xam na ko ndax moom la jàng loolu rek la jàng est-ce que am nga xam-xam loolu kenn weranteetu ko yàgg ngeen toog di seetaan Bassirou Diomaye est-ce que say loxo set na kenn weranteetu ko est-ce que tey buñ ne newoon état ngi nii suba nga démarré peut-être minute bi sax mën naa sirio may dina démarré waye li gëna a neex mooy Pastef projet la Pastef du mbirum benn nit moo équipe la démé dañuy démé équipe kon ma japp ni expérience biñu soxla pour mëna yor réew jom ay yor na ko ba seuk seuk seuk seuk sëkk Senghor biñ koy jox réew mu musul won yor réew Ablaye Wade koy jox réew ñaari yoon la dugg ci gouvernement def fa quelques weer génnaat waaye musul woon réew sooy xool président àdduna bi néew na koo xam ne nekkoon nga ci appareil d'état bi cest dire en tant que ministre wala gouvernement bi demee ñu bëri musuñoo jaar foofu te ñi gën ci président yi nag mooy ñoo nga xam ne jotuñu leen formaté ci système bi ba yàq leen léeg ci ëpp ñi gën ci président yi mooy ñooñu. kon day gis wax ji day bari wa diw am na expérience nit yag na ci gouvernement lan la fam ci experience randal al rew mi complot jaay rew mi wa bitim rew ñun dañoo soxla lu bes lu yes, lu and ak xam-xam and ak fit parce que réforme ñu war def ci rew mi dafa laaj fit jëlaat suñu bopp mat suñu bopp dafa laaj fit waaye dafa laaj ku si xam-xam mais dafa laaj loxo set dafa laaj koo xam ne amul fenn fu la gaay mën a téye ba di la te loolu lépp daje na ci Basiru Jomaay muy lu ma leer lu may lam-lami kon critères yi dajale yëpp boo dajale ma nga ci Basiru ñeenteelu critère muy bu mujjee mooy choix bi nu mu yomba expliquer ni mu gën a yomb layalee rek la gëne choix bi nga xam ne jarul lay yu bari mooy choix bi gën bu dee da nga war a choisir ba pare war a expliquer lu bari war a convaincre nit ñi li tax ma tànn tànn bi li tax ne et cetera te nga xam ne dañuy dañuy jege élection ndax vidéo bi may def lu génn lu dul liste définitive bi génn na ba pare la ñuy dox suñu diggante ak bi na gàtt gàttaay boo xam ne. bo ci bëggé nek di convaincre nit ñi wala nit ñi tassaro nga war leen dajalewaat di andi dina xaw metti da lolu gaw ma ni li nga xam moy porte mbir bi ci infrastructure Pastef suñu ne tan nañu Bassirou jomay dina jaar dina jaar ay lay ak ay wax yu bari waye dama gëm sax ni li Sénégalais yépp la nga xam tay tey ñépp bëgg changement ta yaakaare ko jaarale ci ñun boo tan na naa Bassirou Diomaye dina ci am kenn koo xam ne dina ne incohérence am na ci du ci am kenn koo xam ne di nga obligé témat di ko expliquer pourquoi kon loolu yëpp daje na gëm naa ni su ma tànnee Basiru li nga xam ne moo porté li ñuy def nii ndax ku ñu àndal rek dangay nga ñëw jàpp ci liggéey bi yokk ci li nga andi waaye ñun ñëpp xam nañ te loolu yàlla ko tudd nee naa leen duñ suñu mérite lay base bi dëkk dëkk dëkk mooy Pastef ak infrastructure moo tax loolu il faut ma sédd ko ci choix bi naam te ñu ma tànn ne leen buñ ci tollee dem leen uti fiche am na ci ñoo xam ne tey am nañu profil bu mucc ayib ci wàllu intellectuel ci wàllu jaar ci wàllu expérience ci wàllu léeg-léeg li du choix boo xam ne dama ko jël ci parpalo rek wala kii moo ma neex kañ jëm nag bu soobee yàlla dañ ci yegg am na ci loo xam ne waxtaan naa ci ak yenn ñi nga xam ne bëggoon naa ñu dem jëli fiche wax leen bu ñu demee ba étape bu nekk lan lay méngoon ba bu ñu demee ba yàlla may ñu gañe bu ñu demee ba yàlla may ñu gañe am na loo xam ne du waxu mbedd duma ko wax fii mais na ngeen xam ni lépp lu ñu organiser la ba pare te di ngeen gis ci weer yi ñëw di ngeen xam ni lépp matuñu nag waaye pratiquement lépp organisé nañ ko ba pare lu nekk ñu teg ko ci temps moo tax su ma leen ne même gannaaw bu ñu gañee ba pare organisé nañ ko ba pare te bu soobee yàlla dina léppay baax ngeen war maa gëm kon tànneef bi loolu la may ñaan nag xaw ma yan candidat ñooy jàll de mais beneen candidat bu jàll maa ngi lay ñaan. nga nangu choix bi d'abord paré ba jëmmal ko jëmmal ko wax ak sénégalais yi won leen ni nangu nga choix bi and nga ci à cent pour te dëgg ci dem ba jeex parce que wax naan ko ci premier vidéo Pastef du projet wu nit du projet wu mana mana mana sudul man rek euh ma xëpp ci suuf budul man rek merna xamna sax ñima tan tànn ñëpp nag ne ne ne nañu dem boutique dañu dem déposé xam naa ni kenn melu ci noonu waaye nag dañuy fàttalante rek ndax fàttali baax na te seytaane dafa gaaw dafa gaaw fëkk nit may fàttali rek man def naa sacrifice bu ne jël naa sama sama sama jëmm sacrifié ko sacrifié liggéey sacrifié sama liberté sacrifié sama famille sacrifié lépp bu dee nag sacrifié naa loolu yëpp teewul bu dee intérêt bi intérêt général ak intérêt Sénégal taxaw na ma ne man mun naa effacé wu pousse ñeneen ñu dem kon waxu kenn kenn warul xalaate nene kenn amul droit xalaate nene may ñaan ñëpp nag ñu jëmbal loolu waaye waxoon naa leen ci premier vidéo bi nag ni am na ay schéma yu taxaw ndax dama naan ñëpp nañu yeneen candidat yëpp nañu bàyyi mu dess ben candidat wala dañuy bayyi yenen candidat yi ñu jëmmal ñu jappalé candidat boobu Bassirou Diomaye jamono ci ñi wax ni ma nga kap man ñoy teud ndax bi fiyeeg boobu dinañ ko ba xawma ndax dinañ ko bàyyi mu def campagne bu re ma nga fa ci ba jamono joju xawma ci yoon dañ ko wara bayyi bu dee jamono ci egg nañ fofu te man ter nañ ma nek candidat te mom ñu désigné ko dañ ko wara bayyi

waaye li ma doon wax mooy yeneen candidat yi la ma bëgg ci ñoom la may proposé bo pour le reste nit ñi nag mun nañu daje waxtaan xool ndax bëgg nañ ko defee neneen waaye suma ma yeneen candidat yi bu dee ñeent c'est-à-dire bu dee li ñu am ci candidat yëpp matul cinq bu dee soo génnee Basir mi ma yeneen ñi matuñu ñeent dama ñaan li ma jàpp man mooy dañu war a maintenir seen candidature ndax day gën day yokk rek suñu capacité communication waaye na Sénégal yëpp xam ni bu wat ba jotee benn Bassirou Diomaye lañu war a waxtaan ñeneen ñi nañu maintenir seen candidature mu gën ñoo yokkal temps de communication gën ñoo yokkal temps d'antenne ca lay jàll RTS waaye gën a diversifier également euh, possibilité yi ñu am ndax bu dee ci candidat yu ma tànn kii Cees la dëkk kii dëkk Malikounda kii dëkk Linguère ki dëkk Daara Jolof ka ca des dëkk euh, nu mu tudd ci Ziguinchor kii dëkk et cetera mun nañu bokk def campagne def benn caravane nga xam ne dañuy dañuy maximiser suñuy moyens ku nekk sa temps d'antenne bu jotee nga wax sa cinq minutes wala sa dix minutes xaw ma temps lay doon. caravane boobu mun na sillonner le Sénégal ensemble mun na am fu ñuy tontu kenn ko nekk na léegi maa ngi jël telle direction wala maa ngi dellu fu ma dëkk moo xam cinq derniers jours wala sept derniers jours maa ngi dem ci zone bi mokkal foofu mu gën a mokk waaye lépp campagne bi weesu ñu def ko ci cadre programme commun bi ñu yor muy programme Sonko 2024 loolu sama gis-gis la waaye loolu ubbi naa ko. ba coalition bi mun na toog waxtaan waaye candidat yi it ñoom ñëpp ñu xool seen bopp ku nekk xool li bëgg ku jàpp ni lool mun na cee dugg wasalaam ku jàpp ni moom dafa bëgg a bàyyi candidature am waaye day ñëw ràññ ci gannaaw joomaay malgré tout campagne na waaye sama xalaat rek laa joxe boobu ubbi naa ko naa ko bàyyi leen mën cee waxtaan. naa nag joomaay fay xam naa ñiñ ko seetal ñu ñu. ci mëna wax lu dul dëgg ci soxor ci mëna sos seen dund yëpp sos la dinañu fay ay nit def nañ ko ci Ousmane Sonko ay ati ati at te teewul loolu dafay yokk dayo Ousmane Sonko ci askan bu ñu demee ba xam ni nag seen pexe sotti na ba tere nañ Ousmane Sonko nekk candidat keneen ku Ousmane Sonko tànn di ngeen lu ne ci moom bu bon la tosaxat la terroriste la salafiste la bëggul sëriñ si fa mu dëkk sax kenn du ko fa xool nangam du ne di ngeen ko dégg waaye seen mënin la jikko ngeen baal ma ci kàddu gi jikko naafeq la ndax booy xool ci alquran li ñuy wax ci jikko naafeq loolu bokk na ci loolu mooy seen jikko loolu rek lañu fa sos wax lu bon fay ay nit ñu bind fay ay nit ñu dem ci tele di wax waaye Sénégal yeewu nañu yeewu goo xam ne looy gën yokk ci nit rek Sénégal yi di ko gën ñoom ñooñu ñëpp wala leen dajale ko man maa leen ci benn balance jël Bassirou Diomaye teg ci beneen bi euh, euh, Bassirou Diomaye mooy wàcc ñoom ñu yëg kon dama bëgg wax Sénégal yi. proposé wut ma koo xam ne mën nañ ko sikk ci dara sénégalais cent cinquante pour cent xam réew bi bëgg réew mi di ko juba ko juba jub ku jàng ba xam li mu war a xam yépp liggéeyal état bi dugal fi ay milliards yi milliards te mu see jël dërëm suul jël terrain wu jàmbur kookee laa leen dénk mooy suñu candidat te bu soobee yàlla kérok le 25 cinq février mooy gagné élection bi dès le premier tour gagnel ñu ko si suñu tour ñun ñëpp incha allah ci gannaaw bu ñu defee li ñu war a def ñun ñëpp mooy takk suñu digg may dellu nag di lancer un appel à tous les sénégalais de tout bord projet bi seen projet la Pastef amul frontière nit mun na toog xalaat ni ah ñii de est ce que duñ ma est-ce que suma ma amna plan ci projet bi wala ma ngi faron ci ci fi wala ma ngi faron feuri est-ce que suma ma dinañ ci duñ japp japp ni méngoowuma ak ñoom déedéet Pastef ànd nek wi nekk na taalal loxoom ñëpp rek lañu laaj kenn ku nek bo ñëwé nangul règle moy ñu ñëpp dañu wara and ànd suppi li li fi xew mënul wéy randal alalu réew mi détourné ay milliards dugal sa poche ak sa njaboot wala yóbbu ci ay banque denc jamono jooju jeune jeune yaa ngi bëgg a dee dem signé contrat bu la neex ñu jël ak lu réew yëpp tubaab bi génn yóbbu ñun ñu toog fi di di te ku bëgg a gém seen réew ñu ne doo fa dem tënk ñu tënk boo xam ne suñu koom seen loxo la nekk suñu koom seen loxo la nekk suñu koppar sax seen loxo la nekk ñun ñu fi dara loolu lañu bëgg mu jeex ku and ci loolu bo ñëwee and ci fas yéene ñu and liggé ci loolu am nga sa place ci projet bi kon ma ngi tendre sama ma ngi ma ngi talal sama loxo ñëpp bu ñu topp buñ ci yeggee candidat bu ñu recalé te nga nekkoon ci candidat opposition bi talal nga suñu loxo di la woo nga ñëw dugg ci projet bi bul ay condition yoy tek jaru ko du marchandage réew mi lañ jiital waaye bu ñu yàlla joxee réew mi kenn ku nekk ci na toll ak la nga war a mën a yor dañ la dénk nga liggéey waaye nga liggéey ngir yàlla rek ak liggéey ngir yërëm askan wi lan ca war a am ci payoor di nga ko am te yem ca ba ca yokk dara lan ca war am ci payoor da nga ko am te bañ yokk dara loolu lañu woo Sénégal yëpp amuñu ci barrière amuñu ci frontière intellectuel yi engagement dafa jot de réew mi ko laaj intellectuel Sénégal yi ndax dañoo am intellectuel yoo xam ne macha allah tubarfakal te engagé nañu ci seen façon ndax lu xew ci réew mi dinañ joxe seen xalaat waaye dafa jot 2024 bi tournant la boo xam ne waruñu ko rate dafa jot ngeen gën a suub waa diaspora moom chapeau yéen moom su ñëpp meloon ni heure bi kenn waxatuñ du ma leen wax dara les acteurs politiques la société civile ñëpp ñu ngi leen tàllal suñu loxo les mouvements citoyens ASC yi sax xewuñu deux mille vingt quatre dafa waroo doon loo xam ne sénégalais ñooy wane seen bopp woon àdduna bi yëpp nag nous sommes un fier te xam nañ ñu bëgg xam nañ fi ñu bëgg a jëm te deux mille vingt quatre mooy doon suñu vraie indépendance le 25 février 2024 ci la suñu vraie indépendance yi démarré kon buñ ko raté ñu ngi leen gërëm di leen sant di leen jaajëfal di ñaan Yalla mu yokk sutura ci réew mi yokk jamm ci réew mi di ñaan Yalla vidéo bi ha Yalla bu buñ ko mësa tek ba ngeen war ko déggu. ndax buñ ko tegee rek mooy lañ ma yéegaloon ne ñoom ña nga ca loolu loolu am na waaye bu amee duñu wañi dara ndax ñun yàlla rek lañu gëm te réew mi rek lañu bëgg kon yàlla ñu yàlla jàppale jàppale leen def jàmm ci réew mi def ci progrès ak prospérité waaye yàlla du soppi ci mu réew du waa réew mi mën a soppi ci seen bopp alquran moo ko wax yàlla mànd na mànd boo xam ne laa yu xayyiru laa yu xayyiru du soppi ci mu réew loo xam ne waa réew ci boppam ñoom waroon nañ ko mën a soppil seen bopp bu ñu wonul yàlla ni bëgg nañ ko yàlla seetaan ni waaye dañ koy ni bëgg nañu waaye jëf nañu sax buñu ñu jëfee nag ba mbir mi sës bu mënatuñu ba ne yàlla day ala inna nasrullahi qarib buñ demee ba mënatuñu ba ne kañ la yàlla di diñu wal yàlla doog ñu feeñu rek mais tant que defoo yàlla lay seetaan jëf nag dafa jot Sénégal te jëf jooju ñu ngi ko war mandargal le 25 février bu soobee yàlla asalaamaaleykum wa wa barakatuh.